19 novembre 2023 ce sera à nationale face à qui ne face à l'enfant de Malika en l'occurrence il va war a tech ak tech Shop de Malika face à Boy Balla bu école euh, euh, bu école euh, Pape Diop Boston tech Shop de Nafa. Wahna, wahna de wahna na lu garaaw mais bon mu waxee wax wax dama ne sa waay yow sa wax ji man du ma ko il faudra ma dem Pikine Boy Balla mu tontu am droit de réponse il faudra mu tontu ñëw naa nag instant bi Manar Nara ni Mangi Tok ak Boy Bala le jeune phénomène l'espoir de Diourbel l'endémie de sa génération sama gars yi dama koy wax sama baat kaw wax naa ko ci ginnaawam dama koy waxat ci kanamum c'est est l'un de sa génération ku xol palmarèsam le meilleur de sa génération ni ci bi du ma lim nag diw wala di wala di ku xool ci jël yi muy daan nga xam ne kii dafa maîtriser li muy def dafa mën a bëri dafa gën boppam mu ngi ci yoonam waaye nag sama sama gars yi le dimanche 19 novembre 2023 l'arène nationale teg choc à gauche booy balla à droite looloo jara xaar mbir maa lay ziar waaw maa leen demee ziar. ci loo ne. maa yaa ngi am jàmm. maa ngi am jàmm avant tout lan ngay nuyoo dèjà ñu lay seetaan. waaw alhamdulilah bisimilah ne waa rajo laaw. gannaaw sant yàlla julli si yonent bi. sama alayhi salaam di ñaar waajur bu baax. Mhm. sant sama yaay bu baax a baax di sant sama papa. Mhm. di nuyu bu baax a baax waa Pikine ñëpp. Mhm. di nuyu ñi ma toogal ñëpp. Paa Issa di nuyu Issa. suma grand frère di nuyu Moussa Sy Moussa suma soxna Asmel maa ngi ñëpp ah mhm. di nuyu waa Pikine waa Xojil mhm. waa Diourbel waa Médina di nuyu aussi itam bu baax a baax sama mbokk waalo waalo yi mhm. waa Siir waa bokki Neddo waa Ngembe surtout jël bi te ko ci loxo euh, ma jabel mu jàllale ma ko di ñaan kilifa Baye Jibi mhm. yàlla guddal fanam wéral wéral ay cëram mhm. waaw di ko ñaan yàlla yàlla bàyyi ko ba ci kanam kanam waaw di nuyu sama mbokk yaay yi mhm. waa Medina waa Sawen waa fukki pété ñaar yi lébu yëpp di nuyu bu baax fi bokk di ah dama ci lébu gi bokk waalo. bokk ah, mais attends. waaw waalo sama papa la lébu yi sama côté yaay. Ah. voilà ñu ñaari fief. am Diourbel am Pikine. am Diourbel am Pikine waaw. yaatu na de dina ak Paar nuyu demee loolooy nuyoo bi. loolooy nuyoo bi euh, mbër mi. mbër mi mbër mi mbër mi encore une fois ñëwoon naa fi ñëwaat naa fi ñëwaat naa fi première émission bañ def dama la ne yow sa yow image maa koy gérer dama la noonu bi mooy premier épisode mais deuxième épisode dañ koy am troisième épisode hmm. tey ñu ngi nuy toogaat hmm. mais tey dama fi ñëw ci contexte bu particulier hmm.

du man maa ko jox sa tour de il faut que ce soit bien clair joxuma ko sa tour nag voilà moom lañ amal combat dimanche insha allahu rabi di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ci kawam kaatu hmm. ñaan kon xam nga ko waaw xam naa ko nii rek déet bu kay boo demee ba jaar si turam kay ça veut dire xam nga ko waaw xam nga làmb dara du umpe quoi nit ki loo loo bëgg a xam si nit ki force da nga koy xam du man maa la jox turam de ah non du yow de man moom dama bëgg mu leer man balika laa dëkk non waaw non du yow du yow hmm. du yow d' accord benn instant rakk ji wax naa ko léegi sama introduction ah. man du ma jaay mbër li ma gëm laay wax lu ma gisul ci nit duma la ko seedeel tu es l'un des meilleurs de ta génération sa génération say moroom da bokk ci ñi ci dàq bëri bokk ci ñi gën a waane ci say moroom yaa may dégg bëre daan daan fi ay ndaanaan bëre daan fi ay jël yoo xam ne ba tey mën naa ne benn la fi man boo gis naa ay jël yoo xam ne daan nga ko fi ci làmb ji benn yoon laa ko mës a gis ci yow laa ko gisee ba tey gisaatuma ko un jour ba ñu ànd di dem saal mm-hmm. dama ne naa man la naam nga ma man dama mën a bëri mm-hmm. Seydina dama mën a bëri àggaguma fu ma war a àgg waaye man dama mën a bëri mm-hmm. gisuma sama morom bu ma dàq bëri gëm-gëm boobu ba léegi moo nekk ci yow waaw man loolu laay doxee à chaque fois tamit sama gëm-gëm mooy man damaa mën a bëre carte gi dama ko mën waa li si des mooy xam nga gars yi teg ci loxo te vraiment tamit mu ngi amélioré <laughs> sant bu baax waaw mu ngi noonu waaw mais waaw mi ngi noonu daal bu dee takk ngemb rek ci biir géew. ah teg teg yi carte gi battre carte gi. loolu da ko mën. nga na lu ma ci mën. waaw hmm. parce que bëre doo daj lépp daal. non non kenn mënul daj lépp kenn mënul daj lépp. waaw mais nag am na loo ci mën daal am na ñoo daal. Hmm. noonu la fa demee. nga war a jàkkaarloog euh, Tek Choc. Mhm. naa la xamal kan mooy Tek Choc. Tek Choc mooy l' de Malika. Mhm. Tek Choc mooy booy boo xam ne mhm. gëm na ne ku taxaw ci kanamam moo la mën. booy boobu jikko ju bon la yor dafa gëm ne ku taxaw ci kanamam mhm. moo la mën te yaag moom da ngeen xaw a jikko parce que da ngay daan ay jël yu rëy Tek Shock day daan ay jël yu rëy mhm. Tek Shock daan na fi mbër dugal ko top 5 mhm. mbër mu yàgg fa lool mbër moomu chaque semaine day daanuwaat chaque semaine mu daanuwaat Tek Shock moo ko def loolu noonu daan ko jël bu amul fenn léegi nag le problème mooy Tek Shock da nga ko naan combat bi danger la mu ne la nañ ma ko jox te soog dañ nga koy proposé adversaire ñu ne diw mësul daanu mun leen garaawul ku dul daanu mbër a koy daan mhm. ndax gëm boppam jàpp ne mhm. jàpp ne làmb ji da koo war a téye moom teg soog mhm. moo tax it bañ ko ne Bébé Balla dafa ne na woo na ma ne ma grand bi man ko yii booy boobu il est très dangereux booy Balla il est nañ foo nañ foo waaw man combat damay neex jël combat ñu ne ma combat soog nga jël moom nee na loolu moo koy neex bëggul jël combat ñëpp ne ko yaa mën waaji yàlla nag dafa jël combat ñëpp ne ko am nga un combat capital. Mm-hmm. keroog dem naa fa. Mm-hmm. dégg nga li mu wax dégg nga confiance bi mu waxee. Mm-hmm. gis nga confiance bi mu toogaale instant bi teg choc. gis nga ko. waaw dégg naa ko say biir wax nga ne dafa am gëm-gëm ku taxaw ci kanamam moo la mën. waaw waaw waaw mais làmb gëm-gëm la. parce que mbët dèjà bu amulee gëm-gëm sa bopp doo daan. ku gëmul doo daan. ku amul gëm-gëm doo daan effectivement il faut mu am gëm-gëm. mais gëm moom dafa am gëm-gëmu dooma daan man dama am gëm-gëmu jàpp ko daan déedéet déedéet dafa ne moom da nga koy xajal mu jàll moom déggoo li ma la wax déet dafa ne da nga koy xajal mu jàll loolu la wax déggoo li ma la wax bu yeex ay waxam nee naa la yow hmm. yaa ko seeti mu toog ak ay ay dof yoo xamante ni xamuñu ci laamu dara ay supporter am waaw waaw mafia mafia bu dëgër ko yokku fit sax mu leen am lu mu leen gëm la mais jàkkaarloon nañ plusieurs fois yoo xamante ni gëm-gëmu dooma daan la am ruube nañ la de mafia bi keroog amul luñ la desal. Seydina est-ce que dégg nga ma. waaw waaw maa lay dama ne la ay dof la toogal. astafurlah astafurlah xamuñu wala toogul ak ay dof mafia bi la toogal dañ maa yàq lu ne. luñ la waxul tey mais tamit li ma waxul dañ kaa fàtte paanu mbalit la rek. waaw xuloo paanu mbalit xëpp lañ la mbalit de. ah non bi ma la ñu xëpp mooy raw. ay dof la toogal am na ku naan xaw ma sa yaataa yeeto mu ne yow. sa yaataa yeeto ay dof la toogal xam nga ñu xaw ko branché nii sax mu gëm lu am lu mu leen gëm ko mais dama ne la moom toog nañ plusieurs fois moom gëm moom ci li ñu toog man ak moom yi ñu jàkkaarloo. waaw gëm mu doomu daan la am. mën na ma am gëm-gëmu. fan nga fan nga teg ne gëm-gëmu doomu daan la am fan nga teg loolu. baax dama lay wax benn affaire. waxal waxal. gis nga man làmb ji nii. Hmm. làmb ji combat bi le 19 décembre novembre bi ñëwuma jóguma pour ay daanook ay ñàkk fayda yoon dama jóg pour jàpp ko duma ko daan ko. duma duma daan ko incha allah duma kan teg soog moom. duma teg soog daan ko. est-ce que xamal li ngay wax ni dina ko seetaan ah. hmm? maa ngi koy xaar non est ce que ne li ngay wax ni mën na ko seetaan mhm. mu tëdd tëddaale mer mhm. jàppal la benn mer boo xam ne danaan non kii sama moroomu góor nee na man daf may duma daan ma jour ji mu ñëw indi loolu ni la sa waay yow mën nga naan daf may duma daan ma addi cible génn seen diggante mu mu fasciné fayu loolu noonu est ce que boobaa du métti ci yow moom bu meree ak bu kontaanee loolu problème mm. dama koy xamal carrément mm. man fi ma teg sama bët sax du moom moom xëy na laamu coow moo ñu boole nii mm. mais du palmarès du du du bu ñuy du mbër yu ñuy bëreel bo du adversaire yu ñuy bëreel def na fi dara de def na fi dara de bu deful woon dara doo leen bëre wax naa ko def na fi lu leer nee naa ko ay mbër yu feebar rek nga doon bëreel astafurlah ay mbër yu ay ay mbër yu sonn rek nga fi daan astafurlah booy bàyyi wax ju ñaaw booy bàyyi wax ju man boo xoolee làmb nit yi gën a tëlaa dama leen jàpp daan la man déggu li ma la mais moom tamit man ñi ma daan daanu leen dañu waxante dëgg waaw daan na fi ay ndaanan moom tamit daan na fi ay ndaanan surtout boobu ay ñu feebar la fi daan wax naa ko ko yow da doon wax ju ñaaw rek ah. ñoom tamit keroog keroog yaay la keroog sulu nañ sa secret de xaawi nañ sa secret keroog booy booy TikTok yi amuñu sutura nekk fa di tudd sa ñaari jabar yi rek ah, lu ñu wax rek ne la booy balla borom ñaari jabar uh-huh. xam naa ne am nga benn jabar loolu na mais daal ñu nekk loolu dama koy wax dama koy wax wax ko ci kanam Sénégal yi yëpp na ñaari jabar nga am borom ñaari jabar du leen daan waaw waaw te loolu yow da nga ko doon nëbb lamb la mm-hmm. dama wax mm. jaruma ci wat jaruma ci ki mais man hmm. ben jabar la am ben dama hmm. baal séer asul benn jeex na ben jabar la am kon dégg nga pour muy leer kon tuddu nga madame loolu tay ku am ñaar jabar kay di nga hmm. tudd kii tudd kële mais ben jabar la am pour ngeen noppalu dégg ngeen seen wax di nag bari na torop ben jabar la torop bi sax madame mo ci ataay bi legui kenn ki ki ngay xamanteni tay moko informer nang ko ay ñaar jabar nangam nangam koku amul jom bër boobu ndax jubé la ko fekk tour ko mu daw genn lamb ji ñu bëre combat ba jàpp ko daan ko ñaari yoon. day tooy kooku daa mer rek moo ñaari jafe benn la am. day tooy waaw nga noppalu nag. waa waaw te bu bis ba. waaw mooy loolu. waaw waaw waaw léegi nañu ñëwaat mhm. mhm. maanaam xarañ mën a bëri. Mhm. arbitre bi woon génn seen diggante yow ak teg choc. bu am nga technique bu daan euh, teg choc techniquement. waaw mais ku jàpp daan ay champion yu ko gën a nekk champion moom a ngaa faalu teg choc teg choc doo ko fi bàyyi. mais daana ko teg choc. ñeneen nga daan. incha allah teg soog incha rabbi dañ koy daan ci kàttanu yàlla loolu. techniquement la techniquement parlant. Ah, lépp physique physiquement mystiquement mentalement lépp nice lépp on est prêt. tu es prêt sur tous les points. ça va waaw bu laag français waxal olof bu laag français dégo français. <laughs> rek di <laughs> <laughs> grave waxal waxal olof rek grave. Oh, eh, mbër mi eh. kon instant bi uh-huh. yow instant bi ni may wax yow. xel dal na. Mm-hmm. ci contact manam bu béré bëre instant bi ni may wax yow ni mm-hmm. paré nga. bu dee physiquement ci wàllu kattan yaa ngi sentir sa bopp dëggantaan. Mhm. mentalement dafa mel ni sa xel dal na. ni may wax ak yow nii. bu baax a baax. yàlla sant yàgg. yàlla sant yàgg. Mhm. lépp nice. on lépp nice. coach Abdou Ndiaye. waaw kay na. pare na ci côté. teg naay atelier nga topp ci. Mhm. tegal na la tactique sema tactique foo war a jaar. oui oui. kan teg choc non mi ngi entraîné mi ngi entraîné mi ngi entraîné day open press suba moom moo la ëpp xaalis nag moo la ëpp xaalis moo la ëpp xaalis parce que moom day open press suba nu ma ëppee xaalis ah open press dafa mais dafa am làmb fu muy toll hmm. man dama déménagé comprendre hmm. waaw ñu ngi noonu quoi hmm. ñu ma toxoo matagul sax ñaari weer affaire yooyu mooy loolu quoi moo tax jàpp gu ñu ëppoon dara ak xam nga defetu ama beeg mm. nangam nangam pikin am seen xam nga mm. non parce que tamit suñu xool neexul quoi waaw parce que suñuy grand dafa am ci luñ jógee mm-hmm. vraiment duñ def open ndax tey sàkkoon nañ buñ doon def open press ñoom ñëpp ñu invité leen waaw mais tey dafa mu teew invité Eumeu Sène teew invité Boy Niang hmm. loolu moo tax def invité Sokh invité ñëpp mais ñi ñaar ñi dañoo jóge ci defet ñaar ñi jëm ci combat voilà vraiment gis nga kon tey day jaadu ñu eskaan bàyyi loolu hmm. fexe daan combat bi incha allah beneen yoon ñu ñu dem. def waaw di di waxaat juste quand même que c'est assez responsable ah c'est un boo xam ne mentalement macha allah aussi man li gën a tax ma respecté la. Mhm. mooy que ne da nga teel a casé wu. Mhm. nekk un jeune boole làmb ji. Mhm. di liggéey. di liggéey sa liggéey boole ko ak làmb ji. deuxièmement man saa yu ma ñëwee fii. raar na de yu may ñëw fii ci kër gi du la fekk. raar na de est ce naa fi ñëw fekkuma la fi xaw benn jour laa fi a ñëw xaw ma su ma juumul jour boobu xaw ma daal mais li ma fi ñëw fi laa lay fekk mhm. marié mhm. gérer sa njaboot kasew yaa mu nekk attitude boo xam ne tamit wax dëgg yàlla attitude bu responsable la mooy waral des fois bu am na mbëri xam ne ils sont corrects ils sont conscients mhm. te des fois ngay fekk xale bu ndaw mais day liggéey liggéeyam boole ko entraînement yi gérer njabootam loolu tamit dañ la ci encouragé mais booy tay nga dee teg choc ñu ñëw tekson choc mu ngi na ñëw rek tekson choc mu na ñëw rek man ñoo koy ñaan mooy ba am ne bar na dag jéngi ma dag jéngi ñu dajé non day ñew mom day ñew bëgguma gëdd ko mu taxawé gauche dédé du dem du dem latéral du dem gauche du dem droite day day ñew addu bu day ñew wax la lool day ñew ah kon baxna bu ñu dajé rek manam ñu dajé rek wa parce que lamb ji wa lamb ji wa wa ñaari promoteur la la wax bëgg nañ ko yàlla xam nga keneen moo ko njëkkoon taxawal ay ñeneen kay ñoo ko njëkkoon ah. am ñoo xamante ne bëggoon nañ ko mu ñu tee jot comprendre nga hmm. xam nga lamb ji grand combat woon waa grand combat woon voilà hmm. comme grand compale woon ndax la dañoo bëgg tey bëre bu neex hmm. waaw mom nak indi woon na fi état Sambour bo xamanteni ni moom. Eh, kenn xamul bay bay bay wax di ñaaw waay booy. bay wax ju ñaaw waay kon commencé nga dañ nan ay dom doom yaq ta fam mo xam nga. bay bay wax di ñaaw ko ba mu rap gis na ni mi ngi. amélioré mi ngi ñëw xas ko ba mu rap yaa ngi dégg Moussa nee na da ko xat mu rap yu ngi dégg. bëgg bërëb yu neex wa dañoo bëgg bërëb bu neex parce que. parce que ñaari jambar ñaari bërkat dañoo wa ñaari jambar léegi do ko nangul jambar nga na état état Sambour xaw ma état la ma wax la parce que état état communautaire la yoro dama lool bëgg moko ci man man damaa bëgg moy japp mo daan ko mu nekk mbët bu atlet mbët boo xamante wax ju rëy champion lay doon wax ju rëy bi nga daan daanaan mais daan koo xamante ni naan ay xamoon na ko man yooyu bugguma loolu mm. moo tax ma bëggoon mu liggéey xam nga mooy loolu mu liggéey lu métti bu nee rungum rek waaw wala te rek étincelle yi tàkk waaw bu waaw fettee li naaw ngeen woon jàmbaar production li waraloon ñu tëgg combat bi duñ ko rëccu voilà ñu mm. non te boo xoolee tamit boo dañoo dañoo respecté suñu combat mm. ba jël combat bi ak benn niveau bi mm-hmm. Mhm, mhm. loolu suñu jàmbaar nee na seen seen dayo toll na foofu nag ñu waxtee dëgg nag seen par seen parcours seen palmarès toll na foofu waaw mhm. kon li ma koy ñaan mooy nañ ñëw ñu suur tànk yi nengal yaram bi ñu ne jam-jam yi jëflante jëflante parce que dañu war a bëggal amateur yi rek ma war a yuuxu ah dañu war a bëgg la amaat nga ne sama yuuxu nga ne nan laa ko yuuxoo sax yuuxu nga ne nan la gën booy bala tànn ko le poulet de Abdou Ndiaye le le passionné de ko dul papa booy booy booy bëre may reporté may reporté bi ah oui Abdou Ndiaye loolu soxla ko ni Abdou Ndiaye yaa ngi sa waay gis nga mhm. dafa yàlla gis nga daf may kaajoo rek mais nag yàlla nañu yàlla defal jàmm de toute façon lu dul jàmm jàmm ko gën mais ce qui est clair quand même mooy que ne mhm. ni ma la ko waxee léegi Moussa ah, mhm. rakk ñooy daje man samay rak ñoy dajé chaque dimanche samay rak ñoy dajé mais ce qui est clair moy que né néna tek shop yow ya ko ëpp sens ci benn côté mu ne ban côté ma ko yow da ngay añ ba paré say supporter dañu añ ba paré nan le wol deuxième troisième dina njaab ndànk dugg arène nationale nee naa ko yow ya koy dalal à domicile mu ne moom wul domicile wala extérieur non il est pas complexé nee na wa pigine xam nañ ko nee na shop choc ñew na fi tournoi tournoi soq yi soq tournoi yi mu daan tëgg ñëw na fi jàpp booy pikin yi def leen lu ñaaw di leen dëpp dippi dëpp dippi dëpp dippi dem ba demi final ñu xeex ko moom teg soog day soob ama tournoi euh, boo ñëwee toj fenn maanaam da ngay ñëw jël li fa ne daa dem ba dem final ñu xeex ko. waaw ban xeex. waaw fii Pikine ni meluñu noonu. Pikine moom da ngay ñëw bëre. boo daanee ñëpp di xam ne daan nga ñëpp ñu yëkkati ñu lay jox jox la waxoo fi dara. mais seen ay kii ñëw ba foofu ñu daan la tamit nga ñëw naan est-ce que sox ak zed li ñoo ko combine sa xeex xosal génne ko làmb ji lu ma ci xam lu ma ci xam ñooñu ay champion leen hmm. ma koy nuyu au passage di ko ñaanal yàlla mooy ko ndam bu ko Jackson tàncee ba bàyyi ko frère la sox bu ko Jackson tàncee ba bàyyi ko waaw kenn porte mais ñu ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla le 25 décembre yow sox mën na daan Jackson waaw mën na ko mën na daan ku jur Jackson ndax ndaanaan Jackson Jackson laa wax de Jackson Jackson bu géej Jackson waalo waalo waaw waaw soo ko dee bés bu ko Jackson tan ci yow ko ah mais en tout cas daal ñu ñaanal ndam Jackson bu fekkee da ngaa ñëw dëkk nga ne da ngaa ñëw daan ñëpp boobaa lañ la naan ñëw nga fii toj mais fi kenn xam nañ ba na ba demi la ñoo la ci bi di waaw di ko lijjanti ñun néew ci dem ci di perte ay demi final ak ay tour ñun dañuy dem jël ko lu leer la laa lay wax laajal sa copain Hercule. wa wa légui légui nak côté mobilisation nak côté mobilisation parce que euh, Siteu. Mhm. Siteu. Mhm. mooy bëri grand combat bi. Mhm. ak la de guerre numéro 2. c'est des ténors. mais ñoo ñu fañu tollu yow fofu nga tek say bët section foofu la tek ay bëtam mm-hmm. n'est-ce pas mm-hmm. léegi côté mobilisation mm-hmm. est-ce que tamit Boy Balla am ay ay ay ay euh, autorités yu koy jàppale parce que on en a besoin hein. fi ngeen tolu ci lamb da ngeen soxla ñu leen di soutenir Boy Balla am combat am ko yëkkati cinq cent nako jappal ci li préparation mystique am ko yëkkati dix mille 2 millions battre teg ne ko li ay biélage soxla sigam nag kaar moom doo ko jël sante yalla arène national ba tout prêt mais soutien le soutien le soutien de yow yow da nga am ñaari fief nous Pikine à mhm. Djurbel. Mhm. région de il y a des il y a des autorités mhm. buñ la jappalé yow drapeau Diourbel moom ngay Deuxième deuxièmement Pikine ngay représenter mais ana autorité yi waaw autorité yi vraiment euh, ñu ci japp hmm. euh ku ci melni Baboy si. Baboy si. di Magu Moussa si. Magu Moussa si Moussa si maire de parcelle. Moussa si maire bébé Balla. ah Moussa si Moussa si men. Moussa si Moussa wa mooy sama maire. ok Baboy si Magam. Baboy si Magam mi ci japp jàpp. États-Unis vraiment si Sawane si Sawane merci. mention très spéciale sax laay wax. bu làkk français waxal olof waxal olof. bàyyi ma waaw bu français waxal olof. Hmm. kooku mi ngi ciy jàpp bu baax. Baboy si Baboy si merci Baboy si. ak euh, tey ku ci mel ni vraiment. Kanté euh, ah. ak docteur professeur Khadijatou Diallo. léegi professeur Khadijatou Diallo léegi professeur agressé la. Hmm. waaw maa ko ci woo bu baax a baax. Hmm. da ciy jàpp professeur Khadijatou Diallo. Khadijatou Diallo mu ngi ciy jàpp mu ngi ciy jàpp bu baax a baax. kenn du moom merci ah, merci Khadijatou Diallo ak euh, euh, monsieur le maire Amadou Diarra. Amadou Diarra mais ñëw Diarra. Amadou Diarra Diarra Amadou Diarra vraiment moom it. mu ngi ciy jàpp kay xam nga waaw ak euh, ku ci mel ni aussi. ওই ah waalo couture waalo couture mamute waalo couture da ciy jàpp moom da ciy jàpp vraiment waaw waaw ñëw leen de ah. ñëw leen kon daal gars yi am na ñu jot a ñëw mais ñi ñëwagul ñi ñëwagul nag man ñi ñëwagul ñoom intéressé ñi nga xam ne ñëwaguñu te ñoom war a ñëw nag waaw ñu jàpp tamit waaw ñi ñëwagul waaw ku ci mel ni hmm. euh, Pamousé Waalo Couture Waalo Couture waaw Waalo Couture kooku maa ngi koy woo ci biir Waalo Couture waaw ñëwal du dara sax kooku sama mbokk waalo waalo kay waalo waalo champion xale bu gëm boppam hmm. di dagg lu doy waar mbaadu Sido moo dagg ñu de dam ci loxo bi lu mu xottiwul baaxul non kooku moo moom Pikine waaw ñëwal jàpp si ñëwal Waalo Couture ñëw leen jàpp si grand chef grand Cheikh Fall mhm. waaw mi non ma koy wo ci Cheikh Fall grand Cheikh Fall waaw porte courant adu mhm. bees maa ma koy wo ci lamb ji grand Cheikh Fall ni wa dimanche la ñëwal ci combat waaw mi ngi non mhm. ak euh, ndongo ndongo ndongo ndongo mo nek fële fan ci euh, ndongo moo nekk jurbel Diourbel vraiment jurbel di champion waaw wa jurbel fo ñuy ñew nak parce que jurbel ndongo champion la parce que ce combat bi passé ce combat sa diggante euh, kii num turati mm. toujours prêt waaw Diourbel bu ma fi ñëwee après combat bi fekk na fi délégation bo xamné jurbel lañ joggé waaw kon xam nga ñooñu pour ñu passe ñëw passe ak ñibbi day day dafay métti waaw waaw léegi nag les autorités de Diourbel waaw au ñu may benn bus wala ñaari bus wala ñetti bus ndongo moom mi ngi ciy jàpp bu baax a baax hmm. grand doom yaay grand Ndiaga hmm. ak maam Cheikh Lamp Touba Ndiarème hmm. ñoo ñëpp maa ngi leen woo ci bés bi ak ku ci mel ni Ousmane policier Ousmane policier di nit ko baax maa ngi koy woo ci bés bi ak ku ci mel ni ak Youssou Mar Youssou Mar Youssou Mar policier ñëw leen waay Youssou kenn du moom ci man am na ci Abdou Karim la kooku woo naa ko ci bés bi waaw Abou Thiala Mère Mbeer Abou Thial Mbeer man Abou Thial Mbeer Bogen waaw Bogen production waaw waaw waaw ah, kooku nit ku baax Abou mm-hmm. Mm-hmm. maa koy woo ci bés bi Abou mm-hmm. di ko wax dimanche yaa ma gën a xam waaw ku ci mel ni tamit Etienne euh, euh, Ngom Etienne Ngom Etienne Ngom euh, CG bu bu Jurbel nit ku baax a noonu ok Etienne Ngom moom it maa koy woo ci bés bi di ko ñaanal a vraiment mi ngi ciy jàpp bu baax a baax nit ku baax ku dëggu sax Etienne Ngom yàlla ko yàlla may wér may ko gudd fan ak Mm-hmm. ak làmb waa axlul njaaram lépp waa jurbel ñëpp maa ngi leen di woo ci bis bi mm-hmm. bàyyi laat soirée mm-hmm. maa ngi koy woo ci bis bi bàyyi laat soirée di nit ku baax vraiment nekk xëjël ak euh, waa Touba maa ngi leen di woo ku ci mel ni diiru Baye Fall capitaine ak Mbacke ku ci mel ni Modou Diamaguen Paul bu xëjël ah ñoom ñëpp maa ngi leen woo ci bis bi vraiment Aline Sène Sadia Man production. Mm. woo naa ko ci bis bi. Mm-hmm. Ousmane Naar. Mm-hmm. Ousmane Naar maa koy woo ci bis baax a baax. Mm-hmm. mooy borom Ous production. moo tëgg la 31 décembre fële ca Diourbel aussi. grand Pape Ndiaye. Ahmed Thiola maa koy maa ngi woo ci bis bi. confiance promoteur. confiance moom. maa ngi leen di woo ci bis di bëggee di woo ñi nga xamante ak képp kuy jàppale Balla. waa Ndiassane Tyr fi ma dëkk actuellement. jël néew bi teg ci loxo Vemba. mu jàllaleel ma gaa yëpp mafia bi ñëpp su ma liimee damay juum booy ñoom yeyaa ñoom dundal xam nga ñoom uur noré ni gaa yi sama gaa yëpp ñëpp maa ngi lay ñëw ñoom liwi euh, xam nga ngañ gaa yëpp su ma limee rek damay juum waa Ndiassane ñëpp maa ngi lay nuyoo ci bés bi waaw mi ngi noonu noonu la fa demee euh, bala ñuy tëj bala ñuy tëj en tant que doomu Pikine mhm. il faudra ñu waxtaan ci Pikine ah nga joxe sa nga joxe sa sa xalaat mhm. yaa may dégg mhm. euh, làmb Pikine fi mu toll semaine bee passée. Hmm. Ama Baldé bëree le 5 novembre. 2023 hmm. Ama Baldé bëree ak Modou Lo royal bu daanoon jël couronne bi. Hmm. Pikine waroon jël couronne bi pour la troisième fois. parce que Tyson moo ko njëkk a jël dugal ko Pikine. mu ñàkk couronne bi Eumeu Sène jël en mission pour jëli couronne bi. mu échoué. Modou daan ko. Modou daan ko. ay wax yu sew jóge ci ay wax yu ñaaw jóg ci a tant que mbëru Pikine. noo ko dundee. waaw man li ma koy wax mooy. man supporters yi sax laay waxal. supporter la supporters yi nga xamante ñoo dëkk Pikine. Mhm. nañu xam ni carrément. ñun mbër yi nga xamante ni ñooy bëre. Mhm. réeroowuñu suñu biir ñun réeroowuñu muy booy ñaa muy Eumeu seen muy Ama ak Sokh ñooñu ñëpp dañuy déggante tout le te ku ci nekk jàmm nga yéene sa morom waaw mhm. couronne nag. xam nga moom la ñëpp bëgg mais ku ko ci yàlla jox rek ku ko ci war am rek moo koy am mm. ama tey ji bu fekkoon tey ji bu daanoon Modou Lo mm-hmm. yàlla mën na dogal mën na koo bañ a jég mm-hmm. ak keneen ak keneen te lu yàlla dogal loolu la yàlla dogal mm-hmm. ama xale la ñàkkugul dara ndax mooy première xale bu bëre combat royal waaw waaw combat royal waaw euh, nañ ko ñaanal ñu nekk ci kanamam mu doon ay ndami ndam ñu ko concentré wu ci Gris Bordeaux fexe koo daan ci kàttu yàlla bokkaat ci làmb ndax am mooy làmb làmb da koo bëgg. noonu la fa demee. na dem na ji. terrain. Mhm. concentré ci groupe Bordeaux. Mhm. yàlla may ko ndam incha allah. léegi nag euh, mhm. bi amaa Baldé daanoo. dafa am ñu ñu tudd Eumeu Sène ñenn ñu tudd booy Niang. ñenn ñi Ama dañ kaa sot ñenn ñi ne ñi bëgguñu ko wala quelque chose de genre man bi may génn maa ngi day ay supporters ñu ne kër Boy Niang lañ jëm. neen kër boo ñaa lañ jëm danañ jëm eh, quelque chose de genre léegi nag le problème en est que bëri na daanu le 12 maanaam une semaine plus tard jour pour jour Ama dafa bëre dimanche daanu. Mm-hmm. dimanche ba ca topp Eumeu Sène bëre daanu. waaw. Mm-hmm. léegi ça veut dire. Mm-hmm. ne kii bëre na daanu kii bëre na daanu kon ça n'a rien à voir. maanaam Eumeu mënul daan am yor luy daan Ama Baldé. Boy Niang yor luy daan Ama Baldé. yéen a bokk seen fief yéen bokk seen Pikine yéen ñëpp drapeau Pikine moom ngeen di défendre mbër yëpp. léegi nag comme ni nga expliqué supporters yi. supporters yi ñenn ci supporters yi. ñenn yi. Mm-hmm. am na ñoo xam ne xamuñu defet mm-hmm. ñoom bu seen mbër daanoo rek dañuy dof mm-hmm. sippi ko ku ne jiiñ ko ku ne des fois ñu ne magu pikin yi jaar fu bon xam nga làmb supporters yi ni mooy li ma leen di wax gis nga mbër yi ku ci nekk laala boo yoroon luy daan sa morom nga def ko sa bopp yow doo daanu voilà exemple loolu il yor esprit ku yoroon luy daan diw a daanu ba yow doo daanu il faut ñu yor esprit sportif fii làmb léegi làmb léegi xam la moo fi nekk sportif amuñu ko de làmb léegi nekkatu affaire da ay gàllaaj affaire làmb léegi da ngay entraîné am doole ñëw samp taxaw gàllaaj am na ci gàllaaj am na non maanaam comme tey ñi ko jiitalee ba jël ko hmm. bu mbër daanoo sax xel yi dem ci beneen mbër da hmm. ba xam diw moo ko jaay ba xam nangam nangam hmm. foofu laay waxee léegi làmb yow da ngay dem entraîné ji ñëw taxaw dëgg-dëgg sa bopp yaa may dégg parce que ñun côté Pikine boobu noonu psychologiquement dañ cee dañ dañ cee faible faible faible faible faible ah. faible faible faible parce que tey dañoo jiital loolu noonu de trop te boo ko a demee noonu Pikine ak Géejawaay waaw Pikine Pikine nekk sax mën nañu wax ci Pikine mais Pikine ak Géejawaay da dégg ay classe toujours ay pic mbër diggante diw ak diw diggante diw ak diw da dégg yooyu toujours tout le temps xam nga ñu koy def yéen ñoo koy def mooy seytaane yi rek ah yi daal buñ bu dara amee léegi ñu jéem xam nga defar defar mu rafet waaw rafetal déedéet dañuy jéem jaay affaire yi naan dañuy wax ci diw jéem a féewal diw ak diw parce que tey jii da ngay jéppi kii nii ah bàyyi ba dara am rek. nga profité profité ci occasion bi daal di ci attaqué ko sévèrement xam nga teg ci média yeeg nangam nangam ñu dagg ko TikTok nangam nangam loolu moo war a jeex. yow nit ki boo amee moom benn benn. benn waaw waaw nga lijjanti ko. lijjanti ko ak moom waaw ngay sàkkatoo ci ay benn problème. ngay dàq ah. dinaa waxaale soxla nañ bàyyi loolu quoi affaire yi du foofu. Ah, man loolu laa gëm quoi. waaw ah, man tey su may bëre su ma daanee damay xam ne yàlla moo ma may tey. su ma ñàkkee damay xam ni yàlla moo ma dem defaru ji ñëw taxaw tout ma loolu laa bala bala Pikine mm-hmm. seen xel war na dem ci 2018 2018 mm-hmm. le 17 février 2018 la Ama Baldé croisé Papa saw japp ko daan le 11 mars mm-hmm. Boy croisé Sa Thiès jàpp ko daan le 28 euh, le 28 juillet ama sen croisé kii di Bombardier japp ko daan jël couronne bi teg ko fii Ama Baldé tok ni Boy tok ni man maa jël man maa ko photo raf amaa toog ni booñaa toog ni ama seen toog tee couronne bi mu rafet lool waaw léegi lan moo tax sénégalais yi ñenn ci supporters yi lu man xaw tax ñu nekk ay dof rek ñoom victoire lañ xam te sport dafa am victoire nul défaite mhm. léegi la moo tax bu neexee mhm. ñu jubilé mhm. happiness kontaan mais bu naqaree rek ñu nekk ay dof nag mooy li ma la wax rek mooy bu naqaree rek ñu sippi ko kule mooy li ma la wax mooy mooy esprit sportif moom la ñu yorul ñun esprit bu ñu yor mooy nay neex nay neex. toujours toujours non non dara luy neex kon mënut a continuer mën amul. de y a des hauts et des bas day neex ay débat surtout carrière sportive carrière sportive y a des hauts et des ñëpp. muy Sénégal muy muy waa l'extérieur. waaw mais léegi tey ngay daan da leen gën. gënoo leen de nday bàyyi lañ am. ñu am na ak baay am am ay soppi am am ay mag am ay rakk ay soppi am ay noon nga jàpp daan nga war a xalaat ne suba yow tamit mhm. sa morom mën na bëre yow jàpp la daan xoolal tay si nga combat héroïque bi mu bëri démb xoolal Eumeu Sène combat héroïque bi mu bëri démb xoolal mhm. dama daan dégg naan daanu mel ni yaa daan mais Eumeu Sène man démb ba daanu na mais nee naa non non sa waaye tay si nga mii li ñu naan dof la kii ndekee dof la dëggantaan mhm. Eumeu Sène xoolal li mu bëri ak Tapha taxaw face à face kenn mësul duma Tapha Tine c'est la première fois ñuy gis mbër bu jàkkaarloo Tapha Tine face à face mhm. gauche droite talonné gauche droite talonné ba mu naati ba Tapha dem ci médecin bi ñëwaat n'est-ce li mu bëre daan la mbër mhm. mbër des fois day ñëw bëri luy daan daan mhm. mbër day ñëw des fois bëri luy daan daanu mbër bëri na loo xam ne daanul kenn daan man loolu gis naa ko fi yaa ngi may dégg Eumeu mm-hmm. Sène euh, bi dafa bëri luy daan mm-hmm. daanu mm-hmm. ki ko daan kan la Tapha Tine ko daan war na ko mën a daan ñaari champion ñoo daje combat bi 2013 la woon 2013 la woon lañ ko bëri n'est-ce pas il fallait un vainqueur et un vaincu Tapha Tine lañ ne woon Camon Town Camon Town bi dafa yeewu Camon Town bi dafa yeewu Camon Town bi fu mu toll ku ko bëgg a daan ni ko neexal de ko <laughs> Tafatine huit ans sans défaite 10 dernières dernières années deux défaites la ci échoué Ben bi combat waaye la face à Balla 2 bi ci qui pël bi moo ko nax daan ko Ama Baldé mooy ba mu Comme ci bi ko mm-hmm, mm-hmm. kon kon kon affaire yi sport la mm-hmm, sport nag il faut toujours un vainqueur et un vaincu Ama Balde combat am ak Modou Lo gars yu bëri bàyyiñ ci xel mais Ama Balde moo joué combat bi ci début à la fin Modulo, Lo côté je jour boobu maa ngi maa ngi xool côté supporter du Modou Lo yi mm-hmm. feesul mm-hmm. ma ne xam naa waa parcelle xalaat nañ ne làmb ji la mm-hmm. di xalaat coow histoire problème tension Ama Baldé moo calmé combat bi du début à la fin non champion la kooku mbër la kooku billaahi wallaahi bu supporter yi babeeku lu wàcc dugg ci dugg ci ci enceinte bi Ama Baldé moo joué rôle boobu gis nga bi jël am na amul jël am na amul. Mhm. bi mu jógee bu andi woon histoire booy dañuy babee ko wàcc. mais jóg na taxaw. Mhm. arbitre dem na vaar ñëwaat. Mhm. Modou Lo mi nga taxaw naa nii. pare pour bëre waat. arbitre ñëw na yëkkati loxo Modou Lo Ama bu defoon benn geste. booy dañuy wàcc parce que boobu seen xol tàng na. mais Ama moo saafonte ak Modou Lo. gis nga geste boobu mu def. moo waral supporter yëpp dañuy toog. la parce que Ama lañ sopp Ama lañ topp. Ama bu defee yëfi dof ñu def yëfi dof. bu Ama def yëfi defee Ama Balde moo saafonte ak Modou ñu gis loolu toog ne neemu mhm. waa ji delluwaat ndànk ci ci ci mukaayam mhm. ne gars yi acca nan ñibbi mhm. est xam ne Ama nit la waaw mais Ama mbër la xam nga tey jii loolu mooy defar làmb làmb da ngay am fu muy yow xam nga ne yow bokk nga ci ñuy sauver làmb danga xam ko mais nga jëfe ko quoi maanaam kuy digle cangaay da ngay seet da ngay seet parce que Ama tey bu defu woon loolu tey Pikine non mën na doy waar lamb ji mën na doy waar ndax boo xoolee tey jii du question ay billets yu cher boo gisee lu tax waa parcelle ñëw na c'est-à-dire dix mille vingt cinq jëm kaw boo gisee waa parcelle ñëw ñu normal lu ñu war a ñëw mhm. c'est-à-dire mooy lamb ji maanaam comme Pikine la te mhm. tension bi mu am tension bi bu siit amee lii xew waaw loolu lañ sóoraale tamit nag loolu lañ sóoraale soxla tamit loolu lañ sóoraale loolu moo tax parcelle mais tey yàlla xam na ni bu ñu xamee woon ni lamb ji nii lay demee ama mi day indi fair play tey waaw non lamb ji du doy dañ fay fees dell waaw ku yéex du am place jàmbaar la di ko ñaanal vraiment xam nga waaw li nekk ci kanamam yàlla na daax li nekk ci ginnaaw am ndax xale la xam nga il est encore jeune na defar waar rek hmm. làmboo ñuy ci kanamam noonu la fa demee am avenir noonu la fa demee kon dal yalla ñu yàlla defal jamm li ma fi indi woon mooy émission waajal combat mais il fallait tamit parce que man xamna sa communication machallah mm-hmm. mm-hmm. yalla yalla yalla fal ci mm-hmm. communique bien malgré dégo français waye dal boy wax ci olof moom te communique très bien ya ngui may dégg li wax fini wax nit la té gaay tamit nañ ko jappé non gaay yi gis nga nañ bayyi di monopoliser di di di di di di di utiliser ñenn ñi pour xeex ak ñenn ñi nañ bayyi yoyu am nga problème ak diw da ngay xaar ba am occasion jël nit ñi mobiliser len contre telle personne loolu c'est pas intéressant ama bëri na daanu jàgg na fe taxaw na fukki at daanuwul Eumeu Sène bëri na daanu amul lu mu jëlul ci lamb nek na roi des arènes Boy ñaan mi ngi waajal Modou lamb la soq mi ngi waajal euh, euh, euh, Jackson lamb la waajal leen seen i seen i mbër bu Pikine xewlee ngeen mobiliser yéen am ngeen déjà sens boo xam ne supporter Pikine am ngeen sens boo xam ne arène nationale à Pikine lañ ko sam mbër bu fi bëre yéen a ko dalal à domicile ah, ah, ah ama une semaine avant muy bëre du Pokola moo bëre daan gàkku dee jël bu rëy une semaine après bu mu bëre du Jacob Baldé moo bëre daan macca jël bu rëy macca taxaw na fi juróom benn at kenn koo daan Jacob mm-hmm. Baldé daan ko mm-hmm. kon lamb la n'est-ce mooy santal gërëm. ñu waajal émission après combat. inshallah rabbi ma defoon nañu après combat. inshallah ñu waajal émission. Hmm. après combat. lan ngay tàggatoo ak lan ngay wax wa jamba production. wa Cheikh Ndiaye assurance. Hmm. Papa saw à la tête de la structure. Hmm. Mansour Ba à la tête de la structure lan nga leen di wax wa jamba production. wa wa jamba mo li ma leen di wax moy ñom dañu ñew xam nga yokkul làmb waaye wàññiwuñu dañoo yokk waaw waaw vraiment te yokkul yaa wàññi dañoo yokk vraiment waa jàmbaar mention spéciale à vous mhm. di leen sant bu baax a baax lu ko dalee ci ñoom Papa Sow assurance ACC mhm. ba ci Xaadim Anta xam nga mhm. ak ñi ma ci xam ñooñu ñëpp waa Mor Diouf ah Na jëf ju fi production mooy waajal le neuf mooy waajal le neuf le neuf décembre ab Abou Niassé ak ak Guiro Seras le neuf moo jub ndaanaan le neuf Bib Diop 95 ci lay bëri ak bébé Garga bébé Garga am na yeneen affiche am na yeneen affiche mën maa fàtte envoyé ma affiche keroog am na Caatu Kayre Caatu Kayre ak Candum 2 Candum 2 bu Guédiawaye ak Caatu Kayre yeneen bagage la Caatu Kayre Caatu Kayre 7 combats 7 victoire macha Allah yàlla yokk Caatu Kayre yàlla ko yàlla may dem ni ku baax la Candum 2 de mën na bëre de am na doole de am na doole de

waa kàcci Ndiassane Tine waa Ridis waa Zeng ndam xam nga bàyyi ma kenn daa ko daan su ma liimee rek damay juum xam nga di woo képp kuy bëggee ba ball rek maa ngi lay woo ci bis bi incha allah rabi wax ci jaru muy bari xam nga waaw mi ngi noonu quoi jëf moo waaw jëf lañ gën a soxla bu jëf taxawee wax wax day toxu wax day xaar waaw ñu woo ñëpp ah mm. di woo waa Diourbel waa loolu wax ci Tek Choc Tek Choc loo koy wax li ma koy wax mooy waxna li ngay waxna wax naa li may bu baax nañ ko jëfee rek hmm. waaw rukum dajé hmm. xeex lu neex bëre neex ci kàttanu yalla ma daana jël bu day dem ñibi ci kàttanu yalla incha après bu jeex ayca ah. sama gaay yi mi ngi noonu hmm. c'était votre émission wadjal combat fii ci Pikine ñu woon seet l'espoir de l'école du Pape Diop Boston en l'occurrence mi ngi nii kii mooy Boy Balla Boy Balla bu Diourbel Boy Balla bu Pikine mi ngi war bëri le dimanche 19 novembre 2023 ce sera la nationale face à Tek Choc bu équipe ben braak mbolo Tek Choc bu Malika mom lay bëral sama gaay wadjal waajal leen loolu combat bi bu ko kenn raté assurance Cheikh Ndiaye euh, Mansour Ba à la tête de la structure Jambar Production Papa Sow ce sera ce dimanche Jambar organisé sama gars combat bi bu ko kenn di di ba ziar